li ñuy war a waxtaanee tey mooy mbirum zone industrielle bu Touba euh, dama ciy sawar lool ci wax ci ndax fa mu soqee ko moo tax ndax mi ngi soqee ko ci Serigne Saliou Mbacké fekk na booba ñu ngi liggéey li ñuy wax liggéeyu plan directeur urbanisme bu Touba nga xam ne ci ndigalam moo ko joxe woon ñu war koo liggéey ci biir liggéeyu plan directeur bu Touba bi nag ñu gisoon ni zone industrielle dëkk bi dana ko soxla bu baax a baax fi ñu ko koy waxee ak fi ñu ciy weccoog moom fekk na moom moo ñu ko njëkk a xalaat gën koo gis ndax njëriñu zone industrielle dafa am solo lool ci dëkk ndax zone industrielle mooy li nga xamante ni bu amee day am koom-koom bu baax ci dëkk bi am wéer dëkk bi am wéeruwaay am ay xëy am lépp entreprise yi ñëw investisseurs yi mën a ñëw ñu bari mën a ñëw mu am koom-koom boo xamante ni day am solo lool am loo xam ne tamit day am wàll ci waa commune bi ak ci ñi fi dëkk ak li ñuy fay ak lépp nga xamante ni njëriñ gi dafa am solo lool. sëñ bi nag mu ñoroon ko lool nga xam ne ñuy waxee plan directeur bi fu mu toll day laaj fan la ci zone industrielle bi nekk ak fan la ci féete ndax moom fekk na itteeloon na ko ba am lu mu ci xalaatoon biñ ko nee nag moom ci boppam lañ bëggoon mu xalaatal ñu fan la ko ki gisee moo ñu joxoon barab bi mu méngoo nag ak niñ ko xalaate woon ndax zone industrielle du fu nekk lañ koy def ndax zone industrielle dafa am foo xam ne ci dëkk fa lañ ko war a teg ndax dafay liggéey ak xeetu liggéeykaay yu bari yi fay nekk mooy tax ne li ñuy wax entreprise yu ndaw entreprise yu mag petite et moyenne entreprise ak grande industrie yi nga xamante ne mooy usines yu mag yi nga xamante ni mën nañuy indi def ay saxaar wala def leneen leneen ba nga xamante ne fañ koy def ci dëkk bi warul loo nekk loo xamante ni bu ngelaw yi ñëwee mën na ko dugalaat ci biir dëkk bi ba nga xam ne fi mu ko indi fii dafa méngoo woon nag fi ñu ko xamante ni mooy fi gën mu waxoon nag ñu tegoon pause première pierre bi ca jamono yooya. te li ci firnde nga xam ni dëgg-dëgg jàpp naa ne am na ci baatin ndax booba tamit sëñ Muntaxa mii xalif général tey moom la yebaloon mu ñëwoon ca bis booba. kon mu nekk loo xamante ni lu ko itteeloon la lu amoon solo ci moom la te fuñ toll doon ci plan directeur bi danañu laaj zone industrielle bi fan la toll. kon loolu dafa am solo te zone industrielle bi nga xamante ni nag def nañ ko dafa nekk boo xamante ni bu mag a mag mag lay doon boo xamante ni buñ ko defee ba mu egg fa mu a egg waxuma ci réew mi waaye ci zone Afrique de l'Ouest bi bi féete saal kii nii moom moo fi gën a mag ndax ñu ngi koy def ci trois 300 hectares waaye nag par ay tranche lañ koy def te dañ ko fàgg bu mu nekk zone industrielle boo xamante ni ci gën a mujj ayib lay doon ak li ñuy wax dernière génération yi nga xamante ni technologie gën a euh, xarala yi yi gën a mujj daf ciy am nga xam ni moom lañ ko defee moom lañ ko xalaatee tamit nga xam ni tey day nekk loo xamante ni ku fi ñëw du bari fooy gis yu mel nii ci Afrique yi nga xam ni tey moom lañ defee nii nga xam ni zone industrielle bi tey dañ ko def noo xamante ni day am li ñuy wax artisanat bi ak industrie yu yu ndaw yi ak industrie yu mag yi ba pare tamit ñu indi ci beneen loo xamante lu am solo la muy euh, por sec por sec mooy loo xamante ni tey dañ ko xalaat te euh, réew réew mi toll fi euh, euh, Touba toll fi tamit nga xam ni tey léegi lépp loo xamante ni conteneur la bu war a jëm si ci Touba ak ci wet gi léegi dootuñu ko dédouané ci Dakar fii lañ koy indi nga xam moom la ñuy wax forcé nga xam ni terminal conteneur lay doon boo xamante ni douane bi ci boppam dañ am direction bu mag boo xamante ni dañ ko fi fàggul foo xamante ni fa la conteneur nekk la ñuy dédouané nga xam ni léegi ku soxlaati lu jëm si Touba rek kenn du ko dédouané Dakar waaye Touba lañ koy dédouané mu nekk loo xamante lu am solo la tamit nga xam ni mi ngi ci biir zone industrielle bi zone industrielle bi ñu ngi ko def nga xam ni duggukaay gi fii la nga xam ni dañ ci fàggu tamit li ñuy wax centre de conférence bu mag boo xamante ni dañ ko fi soxla fàggu ci tamit jumaa jàkka ju mag joo xamante ni dañ ko fi def nga xam ni tey ñii liggéey wax fu waxtu jotee mën nañoo bàyyi la ñu kii ñëw julli delluwaat ñu def ci tamit la ñuy wax administration boo xamante ni moom moo ko yor ak ay service ndax dafa am noo xamante ni dafa am zone d'affaires boo xamante ni day am ci biir nga xam ni tey ñi fiy liggéey duñ soxla dara lépp daf am day am banque ci biir am assurance ci biir am restaurant ci biir am euh, as lépp loo xam ne daal jumtukaay la loo xamante ni centre d'affaires la dañ ko dañ ko def ci biir zone industrielle bi administration bi nga xamante ne moo ko yor moom tam fi la nekk ñu fàgguwaale fi tamit ci zone industrielle bi loo xamante ni mooy ay école de formation ndax bu ñu nee zone industrielle mooy lu bari daf fiy nekk xamante ni yi nga xamante ni ci mbirum Euh, méta menuiserie la daf ciy am ci mbirum soudure daf fiy am ci mbirum métallurgie daf fiy am ci mbirum tissage ak mbirum ndima ak li ñuy wax cuir et peau maanaam fi ñuy defaree daal ak yeneen ak yeneen yëpp daf fiy am lépp loo xamante ni rek ci zone industrielle bi ak li ñuy wax métier agroalimentaire nga xamante ni tey li ñuy defar nga xamante ni comme limonade ñuy naan wala lu jëm ci mbirum lekk ci mbirum leneen ak lépp dañ ko fi fàgguwaale ay usines yoo xamante ne ay entrepôt yoo xam mën na fi nekk faal fàggu nañ fi loolu lépp ba nga xamante ni loolu tamit day aajo ñu wut ay écoles yoo xamante ni dafay former ñi ciy war a di liggéey nga xam dañ def ay centre de formation yoo xamante ni tey képp koo xam ne ci mbirum agro alimentaire nga war a lañ la war a former am na fi képp koo xam ne ci mbirum euh, métallurgie wala menuiserie moo xam aluminium métal kii bois wala leneen lépp am na fi ak lépp ci mbirum ndimbal lépp ci mbirum meneen xeetu xam-xam dañ ko fiy jàngale nga xam ne am na fi def nañ fi tamit loo xamante ni tey ci zone industrielle bi nga xam ni kër Sëñ Tuubaa lañ koy tuddee nga xam ni ndax day nekk loo xamante ni investir ñu bari dañ fiy ñëw te dañuy soxla léeg-léeg ñëw fi def ay fan te léeg-léeg duñu am fuñ mën a nekk nga xam ne dañ fi def li ñuy wax kër Sëñ Tuubaa dëkkukaay yoo xamante ni dañ ko fi fàggul nga xam ne tey ku ñëw mën nga fi def fan yi nga fi war a def def li ngay def daal di dellu màggal tamit bu jotee mën nañ ko mën nañ ko jariñoo tamit moom tam loolu mi ngi fi fàggu nañ ci zone industrielle bi tamit loo xamante ni mooy li ñuy wax héliport ndax jamono day dox dañuy soxla lu mel ni foo xam ni hélipo kay euh, nu mu tuddati euh, hélicoptère mën na fee dal mën na fee ñëw ndax zone industrielle lu bari mën na fee xew doo dañ koy soxla ndax xeet yi muy euh, àndal moo tax. kon zone industrielle bi maanaam tey dana jur tey ci ay xëy lépp ay junni junni junni emploi yoo xamante ni lépp ci dëkk bi lay ñëwaat te ñu fàggu tamit loo xamante ni. daf ci am solo mooy euh, euh, euh, kii raay bi nga xamante ni am na fii ndax Touba saxaar gi dafa daan ñëw ba egg ca biir léegi dañoo fàggu tamit lu mel ni zone industrielle pour bëgg nag nga xamante ni investisseurs yëpp dañ koy soxla tamit bis bu demee ba développé développé ak liñ fii nga xam ni liñ fiy soxla day bari lool nga xam ni marchandise di dama ko ñëw li ñuy liggéey di dama ko ñëw day soxla lépp ñu koy kii dañuy soxla bu boobaa sax lu mel ni saxaar tamit di ci dugg nga xam ni Euh, fàggu nañ foo xamante ni fa raay bi duggee ba egsi fi tamit fàggu nañ ko ci donc fàggu nañ ci lu bari fii mooy terminal conteneur bi biñ doon wax parking bi nga xamante ni fi lañ jagleel tamit camion yi ñëw di jël conteneur yi moom tam mi ngi fi parking gros porteur léegi conteneur yi fii lañ leen di dajale bu ko defee camionnette yu ndaw yi jël leen di leen séddale lépp mu ngi fi entrepôt yu mag yi nekk fi usines yu mag a mag a mag yi ñoom ñu ngi leen def ci gannaaw donc noonu lañ ko xalaate zone industrielle bi mu nekk ci loo xam ni 300 hectares la nekk loo xam ni euh, jafe na mu am ci am réew kàddu yi nag kàddu yi farata lay doon yu gàtt ndax bis na tey jii di huit mai ñu war a relancer waat benn projet boo xamante zone économique et industrielle fii ci zone Touba Mbacké ndax man agglomération Touba Mbacké lay wax moo tax sëñ Touba Cheikh Saliou Mbacké yal na ko yàlla fay bi mu amee yéene pour taxawal zone économique industrielle fii ci Touba Mbacké yàlla dogal Ibrahima Gueye yan na ko yàlla dolli leer defoon délibération teg ko ci loxoom teg googu mu ko tegoon ci loxoom dañ koy gën a fedd li di ko gën a dëggal ndax njariñul Touba mook njariñul Mbàkke benn la njariñul Mbàkke mook njariñul Touba benn la ñaari dëkk lañu sat ñaari commune wante genn kilifa lañu am benn askan la moo tax monsieur le sous bi ma la nuyoo ma lay xamal rek ne ñaari commune lañu wante benn communauté lañu wenn xeet lañ benn askan nañ génn kilifa lañ am muy sëñ Touba kon bu kenn xàjjale dara nañ boole lépp te xam ne yëfi sëriñ Touba la ni ko sëriñ bi bëggee lañ koy defe te loolu moo jig Mbàkke moo jig Touba ndax lépp benn borom la kon ni ko sëñ Saliou Mbàkke gise woon muy fexe ba zone économique bi taxaw ndax mën nañu wax Mbacké ak Touba agglomération dafa nekk ci digg Sénégal fépp fooy dem ci Sénégal mën ngaa déparé Touba ak dem fa te mooy gën a gaaw yàlla dogal ñu indi autoroute Ila Touba bi ndax fépp fu ñu ne industrie wala zone économique ñu ngi waxtaan ci li ñuy wax yoon yi ubbeeku maanaam proximité avec les les sorties fu nit mën a jaar dugg fa wan fu nit mën a jaar génn fa kon dafa mel ni Ila Touba bi dina gën a yombal sax projet zone économique bi di xamle rek ne sunu yéene mooy di déglu ndigalu sëriñ bi lépp loo xamante ni bëgg na ko ñu taxaw ci ànd ci ak askan wi ak population bi ak conseil municipal ak administration bi ci ni nga xamante ni noonu la gën a rafete noonu la gën a baaxe que gis nga mbir sëñ Touba amul hasard bi projet assainissement bi jógee am problème espace Mbacké joxe na 20 hectares pour projet boobu mën a sauver mën a dund léeg-léeg sama dégg ñu naan njaay amu njaay amu fa ndax fañ ko def dañ fa noonu def benn hôtel wante ci wàllu gestion économique dafa ñox wax de renonciation boo waree def dara ba am financement soo suñ la ko naree xañ dafa am lu ñu lay ndàmpe pour la nga ci noonu am ci ay bénéfices ñu jox la dara ne muñe ko loola loolu la ONAS def wante jaayuñ ko espace ba te espace ba 20 hectares la def fañ ko ëpp na 75 millions. kon ñu koy joxee ci conseil municipal dañ ko joxe ngir sauver projet bi ngir projet Sëñ Touba la te Sëñ Touba moo yilif Mbàkke yilif Touba. zone économique boobu it ci loolu rek lay dugaat ci moomeel Sëñ Touba lay duggaat te yeneen projet yi mën a dikkaatit te Touba am ko na ñëw bu sëñ bi joxee ndigal rek bu Mbàkke amee suuf danañ ko joxe ñu mën koo développer. pour askan wi yëpp jariñ ñu ñëw teewee si démarrage de travaux des zones industrielles des intercommunales de Touba mbakki euh, monsieur le maire Abdou Mbacké na wax na ko léegi yàgg na ko wax Touba ak Mbacké dëkk la tour la aku sant kenn mënu koo xajale dëkk la boo xam ne benn dëkk la kenn mënu koo xajale bët bu set ñu ne ma Touba lii Mbacke lii ma ne leen ci diirab li ma fii nekk lii divisé Touba ak Mbacke Abdou Lahad moom du ko cautionné du ko carré du ko nangu. parce que dama dañ ko fee fekk muy dëkk boo xam ne benn dëkk la kenn ko yilif lépp loo xam ne ñi ngi koy dawale Touba rek dinañ ko dawale Mbacke lépp lu dal Mbacke Touba la dal kon ñu ngi lay remercier bu baax a baax. monsieur le maire yaakaar naa ne toog nañ plusieurs fois wax ci ci entre communal bi nan lañ koy defee ba ñu mën a bénéficier wu ci projet yu mel nii. lii bi ko Serigne Saliou di initier yàlla mii dogal dogal na man maa nekkoon le président des opérateurs économiques de Touba Mbacké te dañu ne woon zone industrielle zone industrielle bu ñu koy tudd opérateur économique yooyu moo tax booba Serigne Matar Diakhaté mii moo nekk tey président conseil rural bi di lépp lépp ci doon wax. yàlla dogal na maa ngi ci doon ñëw di ci teew ci côté opérateur économique tey yàlla dogal ñu ñëw di wax ci turu commune yi en tant que maire kon lu ñu ñu ngi ci zone boo xam ne li ko base bi nga xam ne moo ko initié musuñu ump ba bisab tey bii ñu teew ah, kon nag suñu ñëwee tey Dramé mi nga xam ne mooy architecte bi di confectionner projet bi mu mel nii sëriñ Ahmadou Badi di ko di ko coordonné ñu dem ba ak si fii tey ci ne dañoo bëgg a pose def démarrage de travaux des hangars yi nga xam ne ñoo concerné l'entreprise te matières yu bëree bëri fi daje muy petite et moyenne entreprise yi dañu fiy nekk le grand entre industriel yi dañ fiy nekk donc day am station boo xam ne nii gros porteur gros yi dañ fi nekk mais day am benn centre de formation yoo xam ne dañ ko fee xalaat yu mag a mag a mag a mag donc loolu yëpp nag bu ci dajee di développement économique boo xam ne lu ko ëpp solo amagul ci secteur parce que développement économique et social ci lii rek la mën a jaar dem li nga xam ne moom la ñu soxla nga xam ne Touba tey nit mu mënul tëdd nelaw ku am xalaat te sa xel demu ci mooy éducation bi ak métier yi centre de formation yi fan la nan la ñuy def ba xale yi jàng nan la ñuy def ba ñi nga xam ne jàng raw na leen ñu former leen ñu am métier ñaar yooyu mooy li nga xam ne mooy prioritaire ci dëkk bi parce que mbooloo mi bari na te centre yi néew na jàngukaay yi néew na li fi am yi fi amakas néew sori na population bi parce que xale boo xam ne mi ngi primaire am juróom-ñaari at di dugg oto di dox 15 kilomètres door a jàngi bu ñëwee dox 15 kilomètres mooy 30 kilomètres par jour loolu métti na ci xale boo xam ne mi ngi nekk am na juróom-ñaari at jëm juróom-ñeenti at kon jàngukaay farata la li nga xam ne moo nekk moo fi nekk ci mbooloo maanaam te nga xam ne amuñu benn métier. loolu li ko mën a dindi rek mooy ay centre de formation yu bari yoo xam ne xale yi nga xam ne wéy nañoo jàng danañ mën a dem jàngi métier ci différent métiers pour mën a nekk ay professionnel ba mën a am liggéey yoo xam ne danañ ko mën a sàmmi seen taalibe ak seen ngor ak seen diine waaye nit bu fekkee ne mbooloo ngi bari te jaaruñu ci yoonu xam jaaruñu ci yoonu man bu ñu nu ñu gën a bëree di fitna fu ñu bëri fitna du fa jóg ndax liggéey ak jaamu yàlla ak jàng képp moo mën a génne nit ci fitna te bu mbooloo di jóg dafa war a am mission accompagnement ak yooyu ngir ka fu ñu toll ñii xam ñii man bu ko def bu ko defee danañ mën a liggéey te ku liggéey da nga am loo tedde te ku am laa tedde mën a sàmm sa ngor ak sa diine ak sa bi di ñaan kilifa yi ñu jàpp ci ndax lu naqari dara la lu yomb la nii waaye lu naqari dara la du lu yomb ñi ko bokk yi jiitu waxe léegi fii tegoon nañu fi pose première pierre boo xam ne taawu président lay wadd boobu Serigne Saliou ngi fi buñ ko xoolee war naa jege fukki at ñaar jàpp fukki at ak ñett ci ren bu ma juumul at yu toll noonu war na koo mat booba Serigne Mouhamadul Mountakha mi la Serigne Saliou yabaloon mu doon teg ci xeer wi kilifa yu bari it teewe woon nañu ko ñu yëg ne sëriñ bi itam sëriñ Saalihu ba mu koy xalaat bokk na ci li mu ñeewanti woon mooy ñi nga xam ne dañuy jóge fii di dem bitim réew di fa liggéey yi te yëg na ne ñu ci bari ci ay fabrique lañuy nekk ay usine di fa liggéey loolu it mu xam ne ñëpp mënuñoo màs ci dem wala ku demit doo fa dëkk loola daal ak leneen lañ ca xamul waaye yëg nañ ne bëggoon na cee gàttandu njaboot gi ak askan wi ndax yërmaande ju mu amoon ci taalibe yi ak bokki jullit yi ndax xam nga ne liggéey bi nii ñu ko wanee fii su fekkee taxawe na noonu waxuma la ñi cay liggéey waaye li muy boot day bari ndax ñi mën a jaay jaay yu sew njaay yu sew di ko fa jaay danañ ci gis seen bopp ñi am ay néeg yuñ mën a luyee te soriwul lë liggéeyukaay bi ñi jóge fu sori te war fa liggéey si mën nañoo luyee ci néeg yooyu kon loolu ci wàllu économie njaboot gi yëpp ku ne mën nga cee gis sa bopp ndax lu waay yor ci njaay lu mu tuuti tuuti boo ko dee jaay fa dend ak liggéeykat ya mën nga caa séentu mu gaaw a jar kon loolu gis naa ne lu am solo la te ñëpp ci war a jàpp waaye kilifa diine yi ñoo ci war a jiitu bu ko defee wane ci seen man-man ak seen njàmbaar ak seen yéene ak àggaleel sëriñ saalihu yéeneem ndax ñoo war a bokk yéene ci njaboot gi ak taalibe yi ndegem moom moo xalaatoon loolu tàmbali ko kon nag ñi mu fi bàyyi am na ñëw sas te roy lu baax tuyaaba ju rëy les cay jële kon nag lii bu ñu ko bàyyee gouvernement bi rek bu ñu ko bàyyee maire bi waaye sëriñ Ahmadul Badawi mi ko coordonné xam na naka la ñuy def ba taxawal ab son industrielle bu boobaa nag ña nga xam ne ñoom lañ ca war a contacter yëpp ñu contacter leen ñu fexe kenn ku nekk bay ci sawaar ndax yëf yi mën a taxaw waaye damay xalaat ne yoonu murit nun amuñu jafe-jafe plan yu rafet ndax am nañ ay boroomi xam-xam yu xereñ wàllu architecture bi amuñu ci problème fenn fuñ ci santaane ay taalibe jóg liggéey ko liggéey bu xereñ te duñ ca soxla ñaari dërëm kon nun mel na ne amuñu jafe-jafe boobu bu dee ci wàllu xaalis taalibe yi sawar nañ lool ku laaj lu jëm ci liggéeyal sëriñ bi bañ def ko ci rawatina nag liggéey boo xam ne taalibe bu nekk sa doom mën na caa liggéey wala sa rakk wala sa jarbaat kon benn jafe-jafe la am mooy lépp lu ñu fi yëkkati ci yoon wi te mu nar a jariñ mbooloo wala mu jëm ci mbooloo loola man ci li ma seetlu ci lu yàgg te mën naa joxe ci ay firnde gis naa ne loola du gaaw a egg ndax du ñu ko jox itte ja ci war du ñu ko jox fulla ja ci war li ma yëg nag mooy lu ci ñaari nit seq walla ay nit wala muy luñ associé ci seen biir ñenn nangoo feeñ ca kanam loola moom liggéey ba du taxaw ndax matuwaay yañ ca war a jël yépp dañ koy daal di jël ndax séentu intérêt ba taxaw ca kanam moo ko waral kon nag rikkuwaay taalibe yi sëriñ Touba yi nga xam ne amuñu lu may sëriñ Touba gàddaay fekk si ko te néew doole lool ba ñenn ñi jógoon di tukki bitim réew ku ne xam ne ne bitim réew la fa xew ñu bari yëg nañ ne neexatul lañ fa mënoon mënatuñ ko fa ñu ci baree ngi xalaata wàññikutu amuñu fuñ jëm waaw ñi ñu fi bàyyi woon doon leen waaj wutal ñu tukki di leen bëgg a lijjantili kayit te amuñ lu ñu leen ko lijjantile ñoo ñooñu it mënuñoo am passeport waxuma la ak di am visa waaye waaye bu zone industrielle bu mel nii taxawoon fii tey ñooñu seenu jaaxle dana wàññi kon nañu delloo si mbir yi te teg ko ci ak taxaw te xam ne sëriñtuwaade yi euh, dëkkam bii ak njabootam gii taalibeem yii lépp lu waay yéene ci ñoom tamuy lu rafet tam man leen a jariñ ci seen dund tañ man koo jaamoo yàlla loola lu ca waay tàmbali te yéene ko dana egg waaye lépp loo xam ne lii nag waaye def na ko tam jiital ci intérêt personnel kese loola bu diibee wala mu ñàkk antu kookaa ko boppam ndax kat dégg naa sëriñ Abdul Ahad mu baax ma daana wax ne liggéeyal sëriñ Touba day manees na koo nattoo ci menn mbir boo ko tàmbalee tudd ca sëriñ bi bu la wóoree ne sëriñ bi nangu na ko loola du am taxawaay day daal di egg fi saase waaye nee na boo ko tàmbalee nag mu tëla ticc xamal ne yaa ca tudd sëriñ bi waaye sëriñ bi àndu ca kon lii nañu fexe ba sëriñ ahmadul badawi nun bokk yëpp ñu jàppale ko te sëriñ ahmad yow itam nga ban cee wane ak ragal wala yox yoxi te xam ne am na ñoo xam ne foo taxaw boo geesoo da leen gis tey jii le 8 mai 2019 nañ fexe balaa le 8 mai 2020 ñu fekk lu rëy taxaw fii loo xam ne ab liggéey mën na cee tàmbali loolu mooy farata ji waaye bis bu set ñuy wootee cérémonie di teg pose première pierre te duñ inauguré mukk loolu musiba la wasalaamaaleykum wa rahmatullah ko luy yàgg xaw ma sax fu bi toll sëñ bi sëriñ Saliou Mbacke ridwanullahi taala alayhi daana faral di wax këru isini la ko tudde woon te fonk ko lool nag di ci xalaat xalaat yu bare bare di ci dem di ci dem ba bis mu woolu si Ahmadou Badawi mi waxtaan ceeg moom ndax lu bari nag daanu ko diisoo moom yàlla def it sëñ moom bu lay liggéeyloo mu lay ubbil bunt sëñ Ahmadou itam ba mu ci jógee ay tànkam ah yàlla daal di ci feeñal bunt yu bare bare bare bari daan dem ci réew yi arab yi di dem ci réew yu bari di dem ak ñëw bu dikkee rendre compte sëriñ bi sëñ bi itam boole maak moom nu dem ci président waxtaan ceeg moom président itam fab ay kilifa boole koog moom lépp nu di ci indi di ko doxal di ko doxal di ko doxal ba mu àgg ci si du daanaka financement yi wàcc nga xam ni liggéey bi yaakaar naa ni booba eh, ni ñu ko naale woon lu wat eh, lu mat cinq cent mille personnes yoo xam ne war na emploi yoo xam ne war na ci mën liggéey mi ngi fi diggantale hangar yi ak bureau administration yi ak mosquée bu mag lépp daal jumaa ju mag lépp daal lépp daal naata euh, euh, programme kii waajaloon nañ ko fi. nga xam ni courant bi itam yàlla mi nga xam ne moom mooy jubal mbir daal di fi indi centre bi far nga xam ne kenn soxlaatul leen loolu lépp nag di gis-gisu sëñ saadiwu rek ba tey rek moo mooy sar rek. ndax moom day mel ni fa gis-gisu doom doom ñu baax ñu yem fa gis-gisam tàmbalee nag fenn fu mu yem. ndax garan bii bu fa masaa toog fab benn bant maasale kanamam lu mu ci mënta lijjanti ci àddina amul fu tuubaat fu tuubaat ba fu fu fu réservé nekk fu euh, marché war ne fu jàngukaay war a ne lépp day leer ci kanamam te day woo day woo ñi nga xam ne ñoo yor xam-xam boobu ni leen nii ko bëgg nii laa ko bëgg laa ko bëgg jiitu leen ba noppi jëmmal leen lépp daal tegu ci yoon zone industrie bi maa ngi fàttaliku sax bis am na benn ministre bu ñu wax Seydou Sy Sall ñëwoon na fi eh, siyaare si ànd ak eh, ñëw Mbàkke gis maire bëggey yal na ko yàlla yërëm ci addi àllaaxiraam dàqal ko addi dàqal ko ah, dàqal ko addinaam ànd ak i bëggey ñëw visité zone industrie bi ba ñu xalaat yi ba war koo def lu mel ni li ñuy wax war waroon koo def ay ubbi ubbi def ci ay plan yoo xam ni dañoo bëggoon a doxal ndox mi courant bi lépp dafa ko ay kër loola nag dem di dem di dem ba ñu toq ci nopp Serigne Saliou Serigne bi daal di ma ñëw mu ne ma am na loo xam ne dama la ko bëgg a doxloo ndax dafa am lu ma dégg te Touba di dëkk bu mag te Touba lépp lu dëkk bu mag di soxla Touba soxla na lu dëkk dëkk bu mag di soxla Touba soxla na dafa soxla nag fi mu ne këru usine goo xamante ni. ñii nga xamante ni dañu nekk ci biir dëkk bi di fi liggéey te fa ñuy liggéey nga xam ni dëkkukaay la war a doon waaye wurtul ay liggéeyukaay muy weñ muy lu mën a doon ñu am fu ñu leen yaatal foo xam yi fa lañ leen fa lañ leen di yóbbu ñu di fa liggéey bu ko defee se danañ sellal dëkk bi ñoom it danañ mën a am ak yaatu ca si ca la ñuy def te ma dégg ñu ne nag Seydou Cissé Sall ñëw na fa ba ànd ak i bëgg yi dem visité ko mu bëgg nga daal di sol saw daal léegi buy jokkoo jokkoo booy sol saw daal daal dem ba gisoon ma ministre bi waxtaan ak moom ni ko suuf see suufu Tuuba la ba fa gis tànk te dem ci ibba gi sama taalibe bi itam naka dem waxtaan ceeg moom ma daan dem ci ibba waxtaan ceeg moom jóge fa dem Dakar gis sa Seydou Sall waxtaan ñu ne ma génn nañ ci la sëñ bi di sàmm suuf si di sàmm suuf si suuf si ba ni mu fi bàyyi ko suuf si suuf si suuf si suuf si ruur ruur ginnaaw bi nag lii xew la ci xew waaye bu ñu jékkee ba nag ñu di ci ak di simbaat ay simbu xam naa ne gis kesam booy ba tey moom ba ba tey rek alhamdulilah rabbil alamin moom la suñu moom la suñu borom nangu rek. tey jii laa soog découvrir tamit lu bees ndekete moom c'est lui l'initiateur de la zone industrielle de Touba kon dafa mel ni que moom capacité managériale euh, dafa dem ba nga xamee ni bi euh, ingénieur planificateur la woon en même temps si fi dëkk bi dindi xamuñu moom. parce que sang bi nee na dafa doon toog si kanamam nii amee benn kii rek di la tracé c'était un grand anim anim ndaxte zone industrielle dafa am solo si dëkk dëkk comme kër bu ñuy dëkk dafa am nañ koy dëkkee dëkkuwaay dafa am nañ koy dëkkee même sa kër dafa am fuy néeg bi di nekk dafa am fuy waañ bi di nekk dafa am fi toilettes yi di nekk dafa am fi magasin yi nga xam ne bi fa lañuy denc denrées alimentaires yi tamit di nekk noonu ngay defaree sa kër dëkk si boppam noonu lañ ko war a tërale maanaam Touba ak nu muy màggee ak lu fi am si mbaax ak si ñaan dañoo war a fagg moom fag woon na bu bu yàgg ba ñu tegoon béréb bi kon bu ñu xoolee am na yu bari ñi nga xam ne bi ay xeetu usine ñu ngi dëkkoo ak nit ñi te war ñu dëkkandoo ak nit ñi ndaxte seeni jeexital ci seen i wér-gi-yaram kenn xamul lu muy toll moo tax dafa am yenn xeetu usine hmm, dañ leen di war a ber ñu am yaa ngi ko waroon kër kër usine dañu war a am seen dëkkuwaay dëkkuwaay usine donc mi ngi mel ni que taxaw nañ si ba tabaarakàlla euh, sëñ Abdoulaye Dramé l'architecte présentation mi tamit euh, rafet na gis nañ ko euh, rafetlu lañ ko lool waaye xëy damay attirer attention wu sëñ Abdoulaye Dramé bu mu nekk rek béton parce que bu ma xoolee plan bi béton bi moo bare gisuma si gàncax kon nañu si bàyyi xel ñu def si ay gàncax yu bare bare bare bare parce que usine fu mu nekk ak tàngoor te ñu ngi si Bawol dafay tàng environnement bi day tàng ñu fexe nañ fay mën a defaale ay garab yu yu am solo yu am yu yu bare sax nu mu gënee bare rek dafay dafay gën a euh, tax kii bi gën a neex biir zone industrielle bi boo fu duggee sax da nga war a mel ni àjjana mën na nekk nañu bàyyi xel si loolu donc euh, sëñ bas ñu ngi rafetlu trop. en tout cas li nga xamee ni bi tey jii moom mooy wàllu administration daañ leen si gunge daañ leen si gunge bu délibération yi daañ leen si gunge ba lii nga xamante ni bi ah mission bi tey jii ku ko war a yeggalee mooy sëñ bunt euh, Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla na ko yeggal ak yeneen naal yi nga xam bi am na si dëkk bu tedd bii ñu ànd si ak moom ba ñu war ko inauguré. sëñ Ahmadou nga leen di nuyu lu bari bari di leen sant bu baax di leen gërëm. ci taxawaay bu rafet bii ñu am bokk ak moom jëf ju am solo ji jëf ji nag rëy na waaye ki ko sos te nesiroon ko moo toll noonu muy sëñ Saliou gis-gisam dafa jiitu jamono koy gis ak mbubam mu tilimam da ngay xamul àdduna waaye xam ko ak xam lu waaye dafa rek ci la nekkoon nekkoon jëmm joo xam tam dafa bari woon yërmande lool yërëm bindee fi maa ngi fàttaliku 1997 booba sëñ Mountakha mii tey nekk xalif Sall ñoo ko bokk ndekkee sëñ bi wax ci wàllu yërmande gi mbiram bindee wax ni ñaar su ma sañoon seen liggéey du dox kenn du jaral sëñ Mountakha ne ko kan mu ne ko ñi def intikaaf ñi nga xam dañu jënd ab denc bu yeexe bu yu jaayat ko ak ñi nga xam ne dañuy liggéey ay sang ay néew kon day mel ni bëggul nit dee waaye bëggul nit xiif kon day mel ni looy moo tax mu taxawal lii comme sëñ Tuubaa dafa woote woo waa jéeri woo waa géej gi ñëpp ñëw wuusi ko te leen woo ci jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla gam ñëpp a ngi jeexee di ci xam nañ ko bu baax a baax waaye liggéey bi tam dafa mat a bàyyi xel ndax ixmal li dun yaaka ka annaka tamuutu xadda waaye nag ihmal waxmal li ihmal li dunyaa ka annaka taxiis abadan li aaxira ka annaka nit ki dafa war a liggéey ba jàpp ni du fi jóge waaye dafa war a jaamu yàlla ba jàpp ni du fanaan te alxuraan dañu walaa tansa nasiibaka mina dunya kon loolu taxoon sëñ Saliou xalaat lii ba mu koy xalaatam ñi néew doole la gën a bàyyi xel ndax dañu woon nañ ko tàmbalee ci ñi gën a néew doole wuti ñi am doole kon kooku yërëm na bindeef yi noonu nag noo war a am fun fun fun war a tege bañ ko lii bañ ko nesee yàgg na biñ bi sëñ Muntaxa tegee xeer bi tam yàgg na waaye mbir sëñ Sall daan wax naan mbir sooy toxal mbir day fekk la nga fay def teew jàmp nga doog a toxal loola àlli mbedd wàcc ko te la ngay def teewut jël amul njëriñ waaye nag la nga fa war a def bu teewee booba mën ngaa àlli bu ko defee widu dootu am sëñ bi nag yow euh, sama waxif sëñ Axma leeral na ma ko depuis ca saam yabal taxawaay gi nga taxaw ci lii ngir ñu ubbi lii ak ngir ñu amal lii ak soññ gi nga doon soññ ubbatiwuñ ci benn yoon lépp mi moo doon leeral kon loolu mi ngi ci sant bu baax di la ci gërëm xam na yéen a bokk baay yéen bokk génération bokk dëkk bi tañ war koo defar te kenn ko ne dafa am lu yàlla mën loo am lu yàlla tëliloo sëñ Axma yàlla da koo di da koo dimbalee ah, tijaara la jàng commerce wala iqtisaad économie la jàng moo tax mën a taxaw yu mel nii kon nag ñun ñi nga xam ne jànguñu loolu te war koo mën a jàppale rek nañ ko jàppale te bañ a gor ay système jamono ji léegi kenn mën ta wax la xew lépp waaye nag montar yu baax yi ñoo bokk heure tey ci montar baax yi nga bokk sëñ bi leer laay wax hmm? duma ma du kenn du ma géewalu kenn hmm? lu yàlla joxe jox na la ko waaye dëgg na moom naa ko wax kon lii ñuy taxawal te sëñ Tuubaa rek tax na ci ñëpp jàpp te ñëpp rafetal te ñëpp yeneen te jàmm buñ ko defee rek dara du changé sëñ bi mu fi jóge ay naal la fi bàyyi sëñ Mudu Musaa taxaw ci àggale ko sëñ Fallu ñëw continuité muy jumaa ji sëñ Abdu Lahat ñëw continuité boobu sëñ Saliou ñëpp ñëw kon lii nga xam ne sëñ Saliou ko nisoon 2011 lañ ko tegoon yaakaar naa boobu ndigalu sëñ Sidi Maxtaar moo fi nekk yabal sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa di kat di sëñ Touba euh, def ko tan fis wéel ko yeesalaat ko kon dañuy sant sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ñaanal mbooloo mi fi yëpp ak sëñ Ahmad Bari mi nga xam ne euh, day yëngu ci social ndax ku ne xam ne defar na ay daara yoo xam ne dañuy jàng alxuraan ñu jàng xam-xam ku ne xam na ni euh, def na dispensaire loolu social la te lii lu am solo la moom la ko yàlla man loo bi ko sëñ Saliou xalaatee moom la ko dénk kon nañ nañ nañ nañ ko jàppale te ñaal ko ci mu am ci nag wasalaamaaleykum wa rahmatulah. lii Serigne Mamadou Lo Ngabou wax ñëpp war nañ ko dégg ci lim ci soññee lim wax ne gis na ne li ëpp ci liggéey yi bu fekkee luñ teg ci loxo nit la te mu yëf ko daa dox. waaye bu doon li ñëpp bokk boo mbokk rek boo bo bu leen li ñëpp bokk boo yaxee ak sooxe am ca loolu kon mooy ñàkk jiital njariñu ñëpp te li ñëpp bokk mooy li war a jiitu kon nag sëriñ Ahmad li am lim la wax ne am na ñoo sa ginnaaw na la wóor ne loo song loolu moom na ci sam xel bu baax a baax wax itam ñëpp ci war a bàyyi xel ngir nit bu fekkee ku ne suñ borom day séddale ndax li yattaxisa baaduhum baadan suxriyan noonu la suñ borom binde adduna jëpp ak jeex ku ne ak lana su sa borom jegleen dana su borom tàllal ba yàlla defale ci ak man kon moom itam bi sëriñ Ahmadu Badawi bu suñ borom dogalee mu jàng fànn gi ba bokk ci borom xam yi ci xam-xam yi ci gën a màgg ci àdduna bu ay kilifa wóoroo tegaat ko ci liggéey bi ci loxoom ngir ak jubóom ak xam-xam ak maanoo ñëpp ko ci war a jàppale. ñi mu bokkal Serigne Touba ñëpp ko ci war a jàppale mboolem taalibe Serigne Touba yi te bu ñu waxee njaboot Serigne Touba kenn jiituwu leen ci ñëpp ci war a jàppale ku ne nag jàppale wala la ciy jiitu ku ci ne loo ci am. te muy sa njëriñu bopp nga bàyyi ko fexe ba li nga xam ne mooy ndam li ñëpp bokk moom ndax lii son industrielle bi kat koo xam ne yaa ngi xalaat danga xam te sant bu baax xalaatu Serigne Saliou ndax àdduna si laaj na ko dëkk bi laaj na ko ndax dëkk bi boo koy xool commerce rek a fi ne te commerce lu tax am réew yokku du tax am dëkk avancé te ñi dëkk ci dëkk bi te amuñu liggéey itam bari na bu ñu xëyee li ñu toog rek. amul liggéey amul lu def loolu nag boo delloo ci Masaalikul Jinaan Sëriñ Tuubaa wax na ni bokk na ci li yàq ab société ak askan mooy aw xeet yoo xam ne dañoo yàccaaral euh, fasta seen loxo liggéey kon nag fii ku ne xam na ne ay jàmbaar lañ waaye nit bu fekkente ne xëy na te gisul lu teg loxoom wala fu mu daane ji dooleem wala fu mu xëy di jariñu kon toog la ma kon son industriel bi bokk na ci li nga xam ne dana ci dimbali ñëpp ba nga xam ne doon li nga xam ne fi mu toll nii kuy dox ci dëkk bi di xool da nga xam ne ñi fi ñàkk liggéey bari na te loolu nag bu fekkente ni mu ngi yokk buñ doxaatee fukki at nu mu tolloo rek dana tollaa du lu yëpp kon loolu lépp loo xam ne naqar na la ci dëkk bi loolu bokk na ci da koy def kon nag ñu ngi ciy soññ ñi nga xam ne ñoom la seen loolu nekk ci seen loxo te ki leen ci di sous-préfet ñu di ko yóbbante eh, ak yóbbante ci kilifaam yi nga xam ne ñoo def teewal ñu xam ne lii liggéey la boo xam ne Touba moo ñaareelu dëkk bi gën a mag ci Sénégal kon lépp loo xam ne def nañ ko Dakar rek Touba mooy dëkk bi ci war a topp te ba fi ne xam nga ne lu fi am ci ay usine ak i liggéeyukaay taalibe yi jàmbar seen seenu dogu ak seen pastéef seenu ñeewu coono moo tax mu àgg kon lii nga xam ne nag yéen yéen leen ci war a jàppale war ngeen di fexe ba taxaw leen ci seen kemtalaay kattan ngeen xam ne bu ko defalee Touba Sénégal ngeen ko defal te Touba lu ngeen fi def rek war ngeen ko def ngir yaar war ngeen ko def ngir dëkku Serigne Touba la te yaakaar lépp ci Sénégal ak lu bari ci bitim réew dafay aju kon loolu war naa tax war naa tax ñu def ko waaye mooy ñaareelu dëkk bi gën a rëy ci Sénégal kon loolu waris na ko ci sóoraale bàyyi ko kon ñu ngi la koy yóbbante di kii kilifa yi fi teew yëpp ñëpp xam nañ ne euh, Serigne Saliou bi muy jox ndigal Serigne Ahmadou Bada yu liggéey bi ci moom la ko boole kon bu ñu ko woowaatee tey mu ñëw seere loolu lu rafet la ndax moom jàmbaar la man sax matuma ci moom seere ndax suñu diggante ndax Serigne Saliou sax xamoon na sama digg moom ba li ci ëpp fu mu ko mosaan gisee dana ma ko tudd wàllu laaj ma waaye nag lii mu def kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.